Lathie aar bi sifflé na si diggante Keweul 2 Keweul 2 moo la woon yaa xam moom la ñuy jàkkaarloo combat bi tey li ma teetoo mooy ay gaaw ay dër bu daan combat bi fu muy mujjee ñaari babal babal lañ eh yaa xam ma nga doon fayu Keweul 2 cokaas yaa xam abbi ayatana abbi sifle waat des maanaam bu doon football la ñu naan temps additionnel moo des trois ngeen am yaa xam Keweul 2 sànni na droite yaa xam fayu sama xel tey rek si machine yi lañ sama xel ngi si machine yi bu leen machine si diggante Keweul 2 ak yaa xam Keweul 2 moo toogaas léegi yaa xam jël baaraam ñu ngi ay baaraam damante. ku nekk ngi xalaat seen xel yaa ngi suuf wala dóorante luñ fay def ñoo ngi demaat saako yi ñoo ngi demaat saako yi abit ba leen di topp <laughs> waaye bu leen ma teg lii waaye machine yi laay yaa xam bawal ñaari bawal bawal lii la ngi yëngal stade gaaw na ne moo yi ngi saral ah abisi fena avertissement avertissement encore ah ku nekk am na trois avertissement ku ah, nañ xanaa fii nag combat bi dina fa jeex ab siffle na war ab siffle war na Gueweul 2 plaqué na ko plaqué na ko amul war na ko nangu war na ko nangu eh fu mu jëm plaqué na ko kalkal lu abir bi wax lu abir bi wax ku daan sa morom oh Keweul 2 daan na Keweul 2 lii tey lii ñibbi nañ